mu nekk ab xabaar bu neex ci képp koo xamante ne rek da ngay yëngu ci wàllub tas xabaar gannaaw ba nga xamante ne nag signal bu Walf TV daal dinañ koy retiré woon jamono ji may wax ak yéen nag signal ba danañ ko daal di indiwaat maanaam danañ ko daal di gannaaw ba nga xamante ne nag ay waxtaan daal di nay dox ci ay kilifa ngir ñu daal di delloosiwaat télé askan wi di Walfajri TV gannaaw bañ ko euh, retiré woon seen licence lenn nag waralu ko mooy mars bi nga xamante ne rek amoon na ci week-end wala ñu daal di génn te ñu defoon ko ab direct ba Moussa Bokar Thiam daal di yëkkati ay kàddu nag daal di waxoon ne daal dana couper seen signal ca mujjantal ga nag ko daal di daal di retiré Euh, licence ba ñu génne woon ab décret waaye nag euh, ay waxtaan juddu woon na waaye yenn nag ci ay patron de presse daal di wane woon seenub euh, soutien ba tax nag jamono jile daal dellu si waat nañ li nga xamante ne rek moom mooy lële di signal bu Walfajiri TV gannaaw ba nga xamante ne nag am na ci ay kilifa waaye nag ay taskatu xabaar yu mag ci biir réew mi daal di ci dox ay jéego ba tax nag tey jile ci dimanche ji daal di yemoo ko fukki fan ak benn ci weeru février bi la ñu daal di nekk nekk ci la ñu euh, daal di delloo li nga xamante ne rek moom mooy signalu Walf TV bi nga xamante ne rek daal di nañ koy euh, jëloon euh, ba ñu retiré woon seen licence mu nekk ab xabaar bu neex boo xam ne dafay neex képp kuy téléspectateur wala téléspectatrice bu Walfadjri TV wala nag képp koo xamante ne rek da ngay yëngu ci wàllub média rawatina nag ci wàllub métier tas xabaar.